di ñaan ci borom bi subhanahu wa taala mu jéggal ñu suñuy bakkar ginnaaw bi ñu jéggalante rëcc rëcc yi dox suñu digganteeg suñu morom delli di ndokkeel bu baax ci weeru màgg wii ñu nekk waaye itam rawatina guddi yu tedd yu màgg yi nga xamante ni moom lañu nekk nga xam ne borom bi subhanahu wa taala du deñ di àddu di ci wàcc ay xéewal rawatina ay ngëneelam yu jóge ci moom waaye jëm si si jaam bi ngir rekk liggéey bi nga xamante ni moom la ñu sant ñi nekk ci ba di ko bëgg a jeexal di ñaan ci borom bi ni ñu ko tàmbalee ci bismillaahi rahmaani rahim yàlla nañ ko àggale noonu ci ak alhamdulillahi rabbil alamin bu ko defee di nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp jël nuyooyu teg ko ci loxal kilifa gi muy alxaaji Cerno Xaamidu Baan ci taxawaay yu am solo yi ak yéene yi sell yi lépp rek muy matal mission rasulullahi sallallahu alayhi wa ne woon fal yu ballixu shaahid minkumul ghaib di ko ñaanal yàlla yàl na yàlla yokk waaye mboolem ñi nga xamante ne ñoom la nekkal ñu koy jàppale ci biir si biti kenn ku ci nekk ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di ziraaye itam ajaa soxna ñuma ba ci taxawaay yu am solo yi waaye itam di ziyaara ñépp ñi nga xamante ne buñ dee àddu ngeen ñi dégg walla di ñu gis yàlla nga ko jaarale ci loxol Sàmba Si ñu ngi koy ziyaara moom itam yàlla na yàlla yokk zahiran wa baati baatinan ci daraja yonent bi alayhi salaam bu ko defee nuyoo yéeg yépp ñi teg ko ci loxal ustaaz alxaaji abdullahi njaay mu tegal ñu ko ci loxal ustaaz alxaaji imam Moussa Gueye mu wesaaral ko ci mboolem asaatisa boo xam ne yaa ngi yewwoo ci kër gi waaye itam noonu la ñuy ziyaara mbokk yi nga xamante ne ñoo fiite ci bërëbi liggéeyukaay yi moo xam ñi fiite ci bitim réew ñi ngi jënd yooyu teg ko ci loxal alxaaji pàppalo mu wesaaral ñu ko mboolem ku nekk ci bitim réew te ñiy àddu ñiy jàkkaarloog ñun waaye di àndandoog ñun ci liggéey bi yépp ñu ngi leen di ziyaara ku ci mel ni rakkam jooju di maw daloo ñu ngi koy ziyaara waaye itam Moustapha Gange itam ñu ngi koy ziyaara El Hadj Abdal Aziz Arabi Saoudi walaay itam Mouhamadou njaay Niger Mouhamadou Ndiaye Gabon ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziyaara Papa Jaxate ca Espagne ñu ngi koy ziyaara waaye itam Mouhamadou Mansour ca Allemagne mu mag mag ak mu ndaw ma ñëpp El Hadj Hassan Ndiaye ñëpp ñu ngi leen di ziyaara di leen. ndatagal di leen ñaanal yàlla ci weer wi yàlla na yàlla dimbali ba li nga xamante ne moom lañuy ñuy wuti ci àll bi yàlla yombalal leen lu ñu mën a delloo siwaat ci njaboot gi macha allahu àndandoo ak ñoom yàlla mën na ko sañ na ko yàlla nañu ko yàlla defal te defal leen ko bi jaay saydu wujud sallallahu alayhi wa sallam waaye tam noonu lañuy ñuy ziyaara alxaaji Babacar Jaxam ca amoo siis ak soxnaam soosu di soxna Faatu Ndaw waaye itam Adja Ndeye Gueye moom it ñu ngi koy ziyaara ci amoo siis di ñaanal sëñ bi yal na yàlla yokk saafara zahiran wa batinan di jaay saydu wujud sallallahu alayhi wa sallam Adja soxna caw moom it ca amoo cinq ñu ngi koy ziyaara soxna Ndey Faal Soose moom itam ñu ngi leen di ziyaara teg ko ci loxol soxna Faama Njaay mu wesaareel ñu ko ci mboolem ku yeewoo ci amoo siis ak mbokkam moomu di elxaaji ibrahima mbay waaye itam ak mbokkam mu baax moomu di sëriñ jóob ñu ngi leen di ziyaara ñoom ñëpp di leen ñaanal yàlla kenn ku ci nekk alxuraan ji nga xamante ne eh, moo tax ngay jëf te yàlla rek jëral leen yàlla moomu yàlla na leen yàlla fay bi jaay saydu wujud sallallahu alayhi wa sallam waaye itam suñu daaira dëkkandoo jàmm ca gën yépp bàyyiwuñu kenn moo xam bitim réew moo xam ñi nekk ci biir Sénégal ñu ngi leen di siyaara ñoom ñépp fa tabaarakallaahu ahsanal xaaliqiin waaye itam noonu lañuy ñuy ziyaara itam suñu mbokk yi nga xamante ne ñoo nekk ci daaira mutahabbina fillah ñu leen di tudde suñu docteur yi baax yépp ci mel ni ndooye joom ñu ngi koy ziyaara waaye itam Ousmane Dieng ñu ngi koy ziyaara ñu demaalil géew ñëpp imaam wele fa tabarakallahu oustaz alhaaji Alioune Sall oustaz euh, Alioune Diop ñoom ñëpp oustaz gay ba ca kees bawuñ kenn olof di wax naan ku lim jiwum waaye da dul matal fa tabarakallahu ñu ñu tudd rek ñu demaalil géew ñëpp alhaaji Assane Gueye moom itam ca yoof ñu ngi koy ziyaara ak rakkam jooju soxna Aminata Gueye yal yàlla yokk tawfiq zahiran wa batinan bi jaay saydu wujud sallallahu alayhi wa sallam fa tabaarakallaahu seen émission at tazkira ñi lañu ñu fas yéene ñëwaat àndaat ak di wàllu fàttale rekk ci benn point boo xamante ni ci lañu ko joyal muy ndax dañu toll ci fan yoo xamante ni ni koy waxe rek koor gi mu ngi dem waaye mu ngi ñuy tàggoo waaye itam kenn ku ci nekk jëf ji nga doon jëf muy sa wàll jaamu yàlla du ñàkk léeg-léeg am na ay rëcc-rëcc yoo xamante ni dana ci làmb mu aju ci amaana sax yow mi ko doon jëf yow yëgoo ko xamoo ko fekk na booba am na yoo xamante ni lu waroon a ñëw te ñëwul wala boo yére boo xam ne danga ko sol mu dem ba tilim dana aajowoo ñi jël ko fóot ko ba li nekkoon ci taq-taq wala mu nekkoon ci ay tilim-tilim dal di mën a set kon loolu li mu ci namm rek mooy koor gi nga xamante ni moom lañu nekk mu toll ci tànki di dellu maanaam wane ginnaaw ndax mission la boo xam ne rek Eh, moom la amee woon si ñun di ñëw waaye tam bu heure demam jotee mu dal di dem dafa tabaarakallaahu li ci des daanaka ñi koy séentu taxu koo bari kon loolu rek moo lay firndel ne lépp loo xamante ne lu dikk la rek loolu manees na wax ni lu weesu la waaye tey lu boppa dugg rek gen ba romb na ay fan ci ginnaaw ñi ngi doon taxaw di séentu waaw naan weer wi lañuy séentu waaye ba ñu ko gisee nekk ci léegi rek du yàggaat eh, ñaari fan ñett jàpp ñeent nga dégg ñi tàmbaliwaat di séentuwaat waaw loolu rekk mooy walal ne eh, wér rekk moo ci am solo kenn ku ci nekk nga nekk ci lu baax sax ci te xam na rekk yàlla moom xaarul dara toujours mbiram pare na démb tey door a ñëw lu mu ci mën a doon rek dig ba lay xaar kon kenn ku ci nekk war na si ah, bàyyi xel ah, mu mel ni suñu tomb tey ñu ngi ko jëmale ci wàllu zakaatul fitri ñu koy tuddee asakay muurum koor ndax yonent bi alayhi salaatu wax na ko nee lépp lu mën a doon rekk am na asaka xatta ba ci koor gi nga xamante ne moom lañuy woor moom itam am na asaka asaka jooju moom la ñuy tuddee zakatul fitri muy asakay muurum koor yooyu nag ah borom bi subhanahu wa taala ah moo ñu ko sant gàll ko ci ñun waaye jaarale ko ci làmmiñ yonente bi alayhi salaatu wassalaam boo demee ci biir alquran alquran du deñ di àddu di nu junj toujours ci bu ñu tolloo ci waxtu wi mu ne texe ñeel na ki nga xamante ni mu ngi sellal bakkenam waaye mu ngi sellal jaamu yàlla gi mu doon def ànd ak lépp di ci tudd yàlla di ko kañ di ko bàkk ci turam bu màgg woowu te kawe te sell fa tabaarakallah waaye ànd ak loolu yépp itam di julli doontale ñaari rakka muy bis bu ñu demee ba tollu ca cappaandaw ga suñu ñaari rakka yooyu ñu def ñu julli iidul fitri fa tabaarakallaahu alquran moo ñu koy junj waaye lu mu namm ci loolu mooy rekk tilim tilim yi nga xamante ne moo aju ci koor gi ndax yonent bi alayhi salaatu salaam wax na ko nee na bu ñu demee ba woor weer wi ba mu jeex ba ñu séentoo mu feeñ ñi woor demaat séentuwaat gis ñu wori nee na koor googu dañu koy dajale lépp exemple mu doon bi maanaa benn jëmm joo xam ne dañu ko war a yéegal ci kaw asamaan ak fa nga xamante ni fa lañ ko war a pointé ba ku ko gis xam ne kat lii jëf ju ñu borom bi santoon la waaye defe nañ ko na mu ware waaye nee na pour ñu jël ko yóbbu ko pointé ko fañ ko war a pointé nee na duñu ko def lu dul danga joxe sa zakaatul fitri nga génn ko waaye doo yam ci génn gi kese waaye danga koy joxe ba ñi nga xamante ne ñoo tax ñi sàkkal leen ko la taxoon ñi koy génne ci ñoom illa boobu nga def ko kon bari na ñaare sama kalaas gi ñoo xam ne dinañu góorgóorlu ba génne ko waaw maanaam génne wax ne lii mooy seen asakay muurum koor waaye duñu ko joxe fa lañu koy téye bala taxoon ñi génne ko weesu daanaka loolu nag jëriñul dara bu ko defee mu ne nag suñu koor gi ñu koor dañ koy aj ci diggante asamaan si ak suuf si du mën a dem du mën a jàll mu ne képp koo xamante ne nag dem nga ba génne ko joxe ko ña nga ko war a jox nag nee na bu boobaa ñu dóor koo jël koor gi dem poyante ko fañ koy poyante kon loolu lu am solo la ndax itam ndekete waaye mën naa tàmbali te du àggale waaye fexe góor-góorlu tàmbali waaye itam war ngaa góor-góorlu ba mën a àggale ndax yonent bi waxoon na ko nee mbir yëpp ya ca gën mooy mujjantal ba kon yow góor-góorlu nga def sa lu baax li la yàlla sant nga def ci sa kemtalaay kartan ba mu des benn point rek war nga cee mën a góor-góorlu fexe jéem a matal loolu te loolu lépp booy xool rek boo xoolee ba ca biir daanaka mooy dafa jóge ci yow delluwaat ci yow ndax ña ngi koy jël di ko jox ñooy jaami yàlla yi yan jaami yàlla lañ koy jox jaami yàlla yi nga xamante ne seen loxo jotewul seen ginnaaw jaamu yàlla yi nga xamante ni bala ñoo jox dépense seeni soxna dañoo xëy dem laaji ñu teg ci seen loxo ñu doora a dem jox seen soxna ñu door nduggi kon njaam yàlla yooyu lañ koy jox bu ko defee illa ba nag comme nekk nañ ci koor gi ba jeexal ko war a am suñu mbégte war a feete suñu bisu korite bu boobaa yàlla def benn système boo xam ne dafa bëgg kenn dootul xàmmee ni kii yor na walla kee ñàkk na kenn dootul xàmmee ne kii balaa joxe dépense dafa laaj ak ki nga xamante ne moom mën na joxe dépense lu mat ñaari weer te du ko wàññi dara bu ko defee ñoom ñooñu nag ñi fexe ba bis ba bu jotee lañ daan joxe ci dépense nga xam ne bala ñu koo joxe dañoo dem laaj ñi beñ a dem laaji fenn mën fexe feet gi ñi feet ko ci jàmm muy lan am xel mu dal ba leer na ko ne buñ xëyee seen yoon du nekk ci dépense ndax yàlla jox na leen ko ba pare kon ñiy def comme ni doomu aadama yi di def muy dem di julli ji si ñaari ràkka yooyu ñu koy tudde eh, salaatu iidayni muy julli ñaari iiti benn bi di eh, korite gi fa tabarakallahu muy ñaari ràkka ñi àndandoo ko gaa ñi nga xamante ne dañoo am am koom kon loolu moom la ci illa ji moo waral yàlla wax ñi ñi ko waaye ñi def ko ngir amaana du ñàkk léeg-léeg suñu koor yi amoon ci ay juubu du ñàkk léeg-léeg suñu làmmiñ mbartal wax loo xamante ne waru ko woon a wax walla suñu bëti pakkastalu xool loo xamante ni waruñu ko woon a xool wala suñu nopp yi juum déglu loo xamante ni waru ko woon a déglu wala suñu tànk yi juum dox jëm foo xamante ni waru fa woon a jëm yooyu yépp mu doon ay bàkkaar yoo xamante ni doomu aadama bi moom la làmboo waaye ànd ak nekkoon ci liggéey boo xam ne yàlla moo ko ko sant te yooyu njuum tey muy def tayu ko fa tabaarakallaah wala amaana ba mu koy def sax yëgu ko wala xamu ko bu ko defee ñi jël ca asaka jooju la la ca yàllay faye ñi jéem koo fatt ci fi nga xamante ne moom nga manqué woon kon loolu mu doon loo xam ne lu am solo la waaye di nga dalalaale xel itam sa mbokk yi nga xamante ne ñoom it bala ñoo joxe dépense dañoo dem laaji waaye nga dugal mbégte ci seen biir muy lan moom de leer na ko ne suba du dem laaj di joxe dépense ndax dépense am fanaanoo na ko moo tax bokk na ca la gën ca génne gañ koy génne muy boroom xam-xami wax nañu ni bu desee ñaari fan mënees na ko tàmbali génne am ñu ne benn fan mënees na koo tàmbali génne waaye tam am ñu ne bu demee ba feeñ ci guddi gi bala ñuy julli gi distance boobu it mën nga ko fee génn ñu ne waxtu wi gën daal mooy buñ nee weeru kor wi feeñ na mu ngi nii ñi teg ci seen bët xam nga ne bu boobaa ca sens rekk duñu dal di dem julli ji danañu fanaanaat ba asamaan set ñi xëy ba ca yoor yoor ba doora dem julli ji bu ko defee buñ ne weer wi feeñ ah bu boobaa génn ga waxtu wàcc foofu la gëne ndax dañuy bañ léeg-léegi itam nga teel koo génn ba illay li taxoon ñi génne ko loolu dootul saafaraw ndax exemple lu ci mel ni nga génne ko lu mat juróomi fan avant korite gi ñëw léegi balay korite gi ñëw kan ko jox dem lekk ko ndax loxoom jotewul ginnaawam kon bu demee ba bisbaat du ko tee dem laaj ji te ñi dañ liñ liñ ko tere mooy mu fexe beñal laaji ci bis ba kon moo waral ñu koy yéex a génn ñu ne kon xëy na bu demee ba des ñaari fan wala benn fan bu boobaa distance boobu xëy na boo ko ko joxee du ko du ko mën a sàkkal pexe balaa bis baa jot waaye boo dematee ba nga xamante ne weeru feeñ na donte la benn guddi la distance boobu du fi gaaw dem di ko pasar pasaree ba bis ba jot du joxe dépense kon waxtu wi gën pour ñi génne ko daal mooy buñ nee wi feeñ na ba feeg ñuy julli ji loolu lañ ca bëgg waaye bu fekkee téye nga ko nag ba ñu dem julli ji ba ñëw nee na jeex na nga koy dóor a jël di ko jox ñi ko yàlla jox ne nañ leen ko jox nee na bu boobaa sarax rek nga am comme ni ngay saraxee nii waaye génneetoo muurum koor waaw ñi bàyyi ci xel kon joxe gi day nekk avant julli gi ndax dañuy bañ julli gi ñoom ñi dem laaj ji julli gi dal leen xañ waaw dal leen xañ lan ndax euh, jotuñu ci waaw ba bi ñuy dem di laaj avant ñi ñëw seen kër bay sangu bay julli ji fekk na ñey julli julli nañ ba pare loolu lañ ci ba bañ ko defee ñu jot ci balaa julli jee jot ñi man am xel mu dal mu wóor leen ne joxe nañ dépense bu ko defee ñu jéem a préparer sangu ba set sol seen yére yu bees bu ñu ko amee buñ ko amul ñu sol lañu am ñi paase ko defar ko mu rafet ñi àndandoog doomu aadama yi dem julli ji seen ñaari ràkka yooyu sante ko borom bi itam su subhanahu wa uh, taala kon bu ko defee loolu mooy li nga xamante ne moom lañ ci bëgg boobu nag ajuwul rek ci lenn ci nit ñi ña des mu wàcc leen te pourtant mboolem ku nekk ci weer wi woor ba bis booba jot loo jàppoon war nga ko bàyyi dem joxe ñaari ràkka yooyu rawatina suñu mbokki commerçant yi nga xamante ni ñu ci bari nee nañu jamono boobu njaay ma fa lay gën a doxe wala amaana ñi nekk ci wàllu lijjanti affaire yi moo xam fees nag yaag yu ci mel ni ki yooyu nga xam ne ñoom dañuy tànn dem ca loola bàyyi julli ga te fekk na loo def rek lu dul julli ba pare julli moo ko gën walla nga def ko avant julli ga bu julli ga jotee loo jàppoon nga bàyyi ko dem julli ba pare door a dem delluwaat sa yitte yooyu mooy li nga xamante ne borom bi subhanahu wa taala noonu la ko bëgg bu ko defee ñu jox leen ko bu ko defee kiñ ko war a jox nag kiñ war a lekk muurum koor ci gàttal mooy ku mën a lekk asaka rek war ngaa mën a lekk muurum koor waa ci pour ñi ngi koy jox te yàlla tuddoon na ko ci alquran muy juróom-ñaar yooyu ñu moon innama sadaqat lil fuqaraay wal masaakin ba mu jeex juróom-ñaar yooyu wala juróom-ñett yooyu ñëpp foo ci fekk rek gis ko ci rek man nga koo jox sa zakat war na ko mën a lekk fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin bu fekki ni bii itam xamoo leen kon ni ñuy baaxoo di def ci pénc mi moo xam jël ko dem jox imaam waaye nga xamal ko ne ko lii kat sama zakat la muurum koor bu ko defee moom xam na ñi ko yàlla sant pour mu jox leen ko bu boobaa moom mu mën a dem partager ko joxe leen ko bu ko defee moom imaam moomu bu dee moo ko fa téye ah ba joxew ko ba affaire ya paase bu fekki ni bii am na baakaar bu cay am moom moomu moo koy gàddu ndax yow def nga sa warugar xamoo yëkkati nga jox nga ko xam kon yow sa jaan dinay wàcc bu ko defee noonu lañ koy defee ñi jox leen ko ñi seen xel mën a dal ba bu bis ba jotee duñ dem di yalwaani fen naan dañuy joxe dépense ak yu mel ni ki yooyu ak la nga xamante ne moo ca xew bu ko defee ñi am mbégte comme liggéey bi nga xamante ne moom lañ mataloon di ko sante yàlla moo xam suñu kaabar ya ñuy def di takbiraat muy tudd yàlla xamal ne ko liggéey bii kat yaa ñu ko santoon waaye matal nañ ko di ñaan nga nangul ñu kenn ku ci nekk baalu xàq sa moroom ci àq yi nga xamante ne moo dox suñu digganteeg suñu moroom ndax yàlla ko bëri sutura la ku bëri yërmande la nee seen diggante yi fexe leen mu set ndax bu dee man moom ku bëri yërmande la waaw nabi xibaadiya anni ana alxafuru rahim waaye wa anna azabi huwa azabul alim moo tax ñi duñu ñu sañ naawe ci benn laaf rek toujours da ngay jàpp ne buñ ne kenn dem aljana nga saña tàllal sa loxo ne man la waaye tam noonu itam doo naagu ba buñ nekkee nay dem safaraay nga yëkkati sa loxo ne mana ko defee ñaari laaf yooyu la jullit bi di di naawe beñ naagu ci fenn nag fa tabaarakallah asanul xaalixiin bu ko defee yàlla defal nu ah, sahaadatu daaray ne foofu itam génne gañ koy génne ak lañuy ñuy génne mooy la gën a not ca dëkk ba la ñuy dunde te exemple boo xoolee senegal ci li ñuy dunde boo boo newul ceeb la ca ëpp Eh, boo nee benn danga danga ko ñaarale walla boo tuddee fukki xeet saa yoo jiitalul ceeb itam ba ba koy ñaareel man na koo nekk ci misaar rek waaye la ëpp ci la waa dëkk ba di dunde loolu lañ koy génne kon booy xool lu ci mel ni ceeb baax na booy xool lu ci mel ni dugub baax na ak yeneen ak yeneen yu mel ni ki yooyu ba am ñu ne sax waaw iska doon du jar sax lañ koy génnee a ah, ñi xool njëg daldi koy joxe ba lenn ci boroom xam-xam yi wax nañ ne sax génn njëg ga mën naa nekk ndax exemple tey boo jëlee lu mel ni ñaari kiloy ceeb ñëw jox ko sàmba mu war cee doon muurum koor ci moom ndax moom dana jël ceebu kese boobu kese dem togg ko bu fekkee ceebu jën la ko bëgg a togg walla ceebu yàpp ana diwlin ja ana ndawal ja ana ana ana yamu war a àndal yooyu yëpp dana ko aajowoo waaye bu fekk ni bii kon doon na xaalis muy njëggi bu boobaa itam mën naa dem peese ci yàppam wala mu jënd ci ginaaram wala moo xam loo xam ne dina ci mën a dëgal ak njabootan nga xam ne xaalis bi lu ne di ko ci mën a jënd fa tabaarakallaa ndax bari na ñaare ñoo xamante ne ceeb lañ leen di jox te ceeb bi mënuñu koo togg noonu dañuy mujj obligé dem ca bitig ba wecc ku ko jaayaat ko borom bitig bi ñu jox leen xaalis ñu door a dem ca marché dem jënd ci ndawal ak ya cay ñu ñoom seen yooyu yëpp kon bu ko defee ah, ñi bàyyi ca xel bu baax ñi ne kon d'accord nañ ñi def ko euh, njëg muy xaalis bu boobaa itam bu dee kilo ñaari kiloy ceeb ci gàttal rek regg na doomu aadama njëg gi mën nga ko génne noonu waaye bu dee ci xaalis ngir mu mën a mat rek tey boo jëlee mille francs rek doomu aadama bi mën na cee xéewlu kon bopp bu ne boo ko manee nga génneel ko 1000 francs donte ne am na ñu ne sax eh, ñaari kilo yi ceeb ngay xool njëg gi ñii kilo 300 wala 400 ba ngay dundee yu ci man di xew waaye ala kulli xaal boo ko defee mille francs rek man na fa mu jëm mu defar fa waaye tam fi mu jugee itam mu baax fa lool ñi bàyyi ci xel bu baax a baax a baax jéem ci góorgóorlu boroom xam-xam yi yenn li ku ci nekk rek ah, dinañ ko mottali ndax dañoo toll ci fi waxtu wi di jeexe mbokk mi mu ñi xamal ne li ñu fi amee woon a ah, mat na sëkk kon ñi ngi jéggulu rek di leen ñaanal yàlla ne koor gi yàlla bu mu doon suñu mujj koor yàlla defal ñu sutura zahiran wa baatinan lii mu doonoon li nga xamante ne moo xajoon ci seen mawdu bi nga xamante ne moom la ñu tudde ak tazkira di ñaan rek lu ci jub ñi xam ne mbaaxu yàlla la waaye lu si dëng lu ne rek matadik doomu aadama ñu ngi leen koy jéggul ginnaaw buñ ko jéggaloo borom bi subhaanahu wa taala di ziyaara bu baax suñu benn wóllëre muy sëriñ Mouhamadou coor ca bitim réew ñu ngi koy ziyaara fa mu nekk yal na ko yàlla aar yokk suturam fa tabaarakallahu zahiran wa baatinan ba delloowaat si si njabootam yàlla man na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla defal defal ñu ko waaye defalaale ko mboolem koo xamante ni rek yaa ngi nekk di daan sa doole ak foofa mën a nekk in uridu ila al islah mastata'tu wa ma tawfiqi ila billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu